asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu zuriyatan tayyibatan tujaddidu nahja nabiyil mustafa tajtahidu seex baara mbàkke fàllilu sët baa ngi seex siidil muxtaar sët baa ku leen way way na seex muntaxa mbàkke mbégum maam basiiru siyaare tuuba senegal mouvement amul yàqalaate duñu tooñ kenn mais duñu bàyyi ku tooñ mbejum kanam borooma kay fajal boppam taxaw temu sàmm li fi mag ñi bàyyi seeni jëf ak seeni wax mayatuñu kenn muy laal pas jàmbur lii moo taxa jub zuriyatan tayyibatan di mouvement amul yàqalaate maam Cheikh Fall bu Cheikh Amdi Yaasin Fall ibnu Serif Assane Fall ibnu maam Cheikh Ibrahima Fall moo ko jiite ànd ci ak waa mouvement amul yàqalaate gépp di seti Cheikh Ahmad Bamba Xaadim Rasuul ak seex yi ñu leen di tuddee zuriyatan tayyibatan seen loxo set ci lépp loo xamante ni bii lu naan yàqalaate la mouvement bi yàgg na dox ñi ko séq wax naa ni ne dem nañ ba fa àdduna ba yam gën a sori ci àdduna bi ci seeni am-ami bopp ak seeni xam-xami bopp ak seeni bëgg-bëggi bopp ak seeni man-mani bopp ñu ngi leen di jaajëfal ci loolu ñu leen di xamal ni biir mouvement amul yàqalaate mënees na fee topp lépp luy xam-xamu diine wala muy njàngale mag ñi am nañ fi zuriyatan tayyibatan balwaayi xam-xam di sëriñ Yunus Lo di ñu defal waxtaan bu am solo mi ngi fi am nañ fi sëriñ daam njaay moom it di sët ci seex daaru xasan bokk ci biir mouvement amul yàqalaate di ñu defal ay waxtaan ci wàllu diine ak njàngale mag ñi moom it ngi fi am nañ fi ku mel ne seex di sët ci seex masamba mbàkke mi ngi fi am nañ fi ku mel ne sëriñ saalix mbàkke aadama plus matérielu Serigne Touba Xaadim Rasoul borom Maam Fàllu Mbàkke prothèse am nañ ko fi am nañ fi ku mel ni Cheikh Abdul Ahad ja bokk ci seexi maam Cheikh Ibrahima Faali Cheikhul Xadim di zuriyatan tayyibatan di ko am ci biir mouvement bi tamit mi ngi fi li nu tax a jug nag mooy jàmmu lañ soxla ci biir réewum Sénégal ngir jàmm jooju nag ñu mën ko am ci sunu biir il faut ñu tënku ci li nga xamante ni bii moom lañu ñu seexul xadim jàngal muy bayit bim naan wajal xulóobana ala tawaddudin bila tanazohin wala taxasudin buñ ci nekkee rek ñu am jàmm euh, sëriñ Tuubaa nag daawul tooñ te tooñ mu jéggal la jéggal na nasaraan bi mooman nasaraan bi quatre ràbb quatre marabu ñi ñépp du seen maas qul huwallahu ahadun wane na ko siñaatiiram bi romb na leen jëm ca yàlla naan seex bàmba wóor buur yàlla wóolu na ko mu wóolu yàlla kon tey jii bu leen di diglu ku leen di diŋat ndax démb ku dul seex bàmba taloo ko ñii di naan sàngara lekk yàppu xaj naan yàlla du buur alxuraan gént la seex bàmba naa leen delloo ci leen seen xel te ngeen xam ne yàllaay boroom jaam ñi maay boroom njariñ lu àndut ak lor ku ànd ak man foo mën a jëm kenn du la lor jërëjëfe Cheikh Ahmadou Bamba Mbàkke xaadim rasul soxla wu ñuy passeport diplomate Mbàkke say xasidaayu sunuy passeport sëriñ saalihu Mbàkke lay xasida jaamu seex sàmba Diop sàmm sama xarit xol mi ngi ci biir mouvement amul yàqalaate ci def liggéey bu am solo kon mouvement bi ñi ngi jox loxo ñépp bàyyiwuñu kenn di ñu koy wax di ko waxaat duñu tooñ kenn duñu bàyyi ko ñu tooñ amul yàqalaate lakum diinukum waliya diin di woo sénégalais yépp ci ñu doon benn ñuy waxtaan di diisoo réeroo amul ñàkk waxtaan a am waaye ñay def lu baax di ca dëkk saa su nekk duñ mës a réeroo ci seen biir loolu euh, lu jara bàyyi xel la te yaakaar naa ni soxor day yàq soxor day tax nit ki du mën a am li mu bëgg ci digganteem ak moroomam ba di ko am ci digganteemu ak boroomam rawatina ay kilifa yuy tuddoo ne ci biir këri diine yi lañ bokk di soxorante seen biir di yàqante der loolu bi yëfi lislaam loolu taxul woon a jug mag ñi loolu doonul woon liggéeyu mag ñi kon ñun ñi tombeek jamono boobu nañ fexe buñ bokk ci ñooñu di dox ci soxorante wala yàqalante ndax li fi seex muhammadul amin baara mbàkke wax barki démb rek moo fi nekk taalibe yi ak sëriñ bi ñoom ñoo fi nekk sëñ Baara nee na lu fi nekk taalibe yoo ko fi def may faral di wax ne taalibe beeg sëriñ bi ñoo bokk boroom kenn du dem ci sa boroom bàyyi sa moroom su fekkente ni ànd nañ ci ànd ga nga xamante ni bi moom lañu sëriñ bi jàngal Seex Seydul Muxtaar yàlla nu ko yàlla fayal barki démb li wax leer na ku yaru teggi ku yaruwul du teggi dara kon ñu xam ne loolu mooy code secret bi nga xamante ni bi mooy tax nit ki mën a àgg ci yàlla mooy tax nit ki mën a jariñu fii ci àdduna ak ci ñu ñëw ci seex muntaxaan mbàkkeel bachir barki démb li mu wax dafa leer ñun ñépp nañ doon benn te rafet njort ci sunu bopp te dem jàngi xam-xam jaamu yàlla ak liggéey nay gën a baax di gën a rafet di gën a yuwe man seex muntaxa mbàkke de wax na loolu te nee na man wax naa ko te du ci yàq dara ma ne nañ gëm sunu bopp zuriyatan tey batan gëmul lenn lu dul zuriyatan tey batan gëmul lenn lu dul boppam gëmul dara lu dul amul yàqalaate ñun loolu lañ gëm ndax seexul xadim bu demee ba naan wakun mooy zan lana min shari si xasadin maxsari famin wasalil ayni yàllaahu nga xam ne yàq day tàmbulee ci bët nga xool nit ki bët boo xamante ni bii mooy loolu wala nga def ko ci sa làmmiñ wala nga def ko ci ay fas ak ñaan ak xaatim ak yu bon yooyu loolu du yëfi nit ku baax di yëfi jullit di yëfi doomu aadama du yëfi nit ku nite nañ moytu loolu bu baax a baax ak di bàyyi di comporto comportement di ngak ci sunu diggante ñun doomi soxna yi wala diggante taalibi ak moroom ja ñun ñëpp nañ bokk benn wala xat karam naa bani aadama loolu la sunu boroom wax yàlla moom ñëpp yàlla yilif ñëpp kenn ku nekk sa gëm-gëmu bopp nañ la bàyyi ak moom nga gëm ki nga gëm nga bëgg ki nga bëgg du la yàqal dara ci sa diggante ak sa moroom du la yàqal dara ci sa diggante ak sa boroom dafa am ku ma mas di waxal di mag mu baax boobu maa ngi yor benn jukki ci jukki alquran yi ma yor ko en arabe moom mi ngi ko yor ñu bind ko ci français mu ne ma boo defaree fukki photo war koo jaay fukki nit tëj ki ray ki damm ki ana kuy jënd kenn ñuy woo sunu set d'état yi fi jiitu woon ak yu fi jóge barki démb ak yi fi nekk tey ak yi war a ñëw suba nañ bennoo benn les sénégalais yi taxawu askan wi ci seeni bëgg-bëgg taxawu leen ci seeni jafe-jafe ci anam bépp ndaxkat réew mi yàqalaate baa ngi fi na fi xus na gadd te nag bay ci sa yow tànk te mbéjum kanam la boroom a koy fajal boppam te këri diine yépp benn la ñun ñépp ñoo bokk luñ bëgg muy àgg ci yàlla yàlla nag nit ki mënu cee àgg wala mu bëgg cee àggale nit bëgg koo teg ci waxe kese déedéet ci jëf lañ ko war a teg ndax maam Cheikh Ibrahima Fall daan na wax ne adoom jaajëf joo gis jëf jaa tax te jaajëf ju bari dana waral ngërëmal yàlla ndeyjoor ak càmmoñ ñoo bokk borom waaye bu nekk am na lu la tax a jóg mag ñi seeni wax li muy rëy li muy màgg li muy tedd lépp ay jëf la woon yu sopplu ko ay wax ñu jàngal ñu ko bindal ñu ko ba ëllëg buñ tollee ci waxtu woo wala ñu bëgg caa jëf njàng moomu moo ñuy doon lumière bu ñuy leeral ci suñu jëf mu doon jëf yu kawe yu mag waaye ñoom daanuñu woon bañante ci seen biir daanuñu woon yàqalante ci seen biir loolu taxul leen woon a jug ñun mouvement amul yàqalaate nag li ñuy tax a jug mooy na lépp rafet nay gën a baax di gën a nice di gëna a te bëgg seexul xaddim ba jeex tàkk moo ñu tax ñu ngi tàllal ñépp loxo di tàllal loxo njiital réew yi nga xamante ni bii ñi ngi ci àdduna bi ak ñi fi nekk ci réewum Sénégal ñi fi jaaroon ak ñi fi mas a jaar ak ñi war a ñëw ci jàmm ak salaam ñu taxawu sunu réew mi te xam ne réew mi ñoo ko moom mag ñi def nañ li ñu war a def léegi nag ñun ñoo ci des li ci des mooy nañ dund ci jàmm ak salaam bañ di yàqalante zuriyatan tayyibatan mouvement amul yàqalaate duñu tooñ kenn duñu bàyyi ko ñu tooñ mbéjum kanam boroom a koy fajal boppam taxaw te mu sàmm li fi mag ñi bàyyi seeni jëf ak seeni wax mayetuñu kenn muy laal pas-pasu jàmbu nañ bàyyi soxorante bi nañ bàyyi yàqante der bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na soxor day rey ab xol ni sawara di taale sayu mat noonu la soxor di def ak xol kon soxor amul njariñ doomu adama yépp benn lañ ci bundee waxtaan di yëkkateendoo di tegandoo su boobaa jàmm dana xew ci àdduna bi waaye ku jug yëkkati lu ñaaw teg ko ci sa moroom ma ne yàlla moom jaam ñi ñun ñu moome lañu boroom jaam ñi di sëriñ tubaa xaadim rasul kon bëggante dafa jot bu màggal Tuubaa jotee ñéppay demandoo amul tijaan amul xaadir amul layen amul ñasen amul taalin ba ci chrétien yi sax dañuy dem loolu mën naa ci seede waa mouvement amul yàqalaate mën nañ ci seede mais kon léegi ñun lan lañ bëgg lan lañ bëgg yoru ñuy fetal yoru ñuy jaasi waaye suba gune ak saa su nekk fetal yi nekk ci sunu làmmiñ ak jaasi yi nekk ci sunu làmmiñ moo gën a doon ñaawteef buy doon ñaawteef ay kir ay kirim yu garaaw lañuy def ci sunu làmmiñ di ko def ci sunuy bët di ko def ci sunuy xalima di ko yénente ci sunu biir loolu amul yàqalaate mi ngi koy ñaawlu bu baax a baax a baax nañ woote jàmm ci sunu réew respecte sunuy mag ñi fi nekk bëggante ci sunu biir te xam ni sëriñ bi ak taalibe bi ñoo bokk boroom te kenn du dem ci sa boroom bàyyi sa moroom senegal ñoo ko bokk nañ bokk nday nañ bokk bàyyi këri diine yi kenn mun leen a jaxase dafa am mag mu ma ko mas a nettali ne dafa am ay kilifa yu jugoon doon benn ne dañuy waxtaan ndax fi nu toll de diine ji doy na waar lool ñëwee ba ci Cheikh Abdul Ahad Mbacke mu xamal na leen ni dem leen fa mu yàqoo ngeen defaree ko fa waaye fii ci Touba de dara yàquwu fi te Cheikhul Xadim jal na ab jal ba mu kawe mu jël loxoom bu tedd bu sell ba tekki fekk mag ñaa ngi jàng alquran ñii di jàng xasida ñii di liggéey mu ne leen jox leen ma si daaj ab daaj ñu yëkkati ab pont jox ko mu xamal ne leen ni bantu jalambaan moom laa sàkk ñu yëkkati bantu jalambaan jox ko bu sew bant boobu ñu ko jox bokkoon na ci bant yi nga xamante ne bii moo waral na taxawal bunt ba ñu waroon a liggéey ca bunt yi seewul xadim bi jalee jal bi ba mu kawe mu jël loxoom bu tedd bu sell ba jël jalambaan bi bës ko ci ba mu ne menten ci biir mu ne leen maa ngi leen di seera ni ni ma taxawale jalambaan bi noonu la saa boroom taxawale sama lislaam ji du yàqu te deesu ko yàq ba àjjana Cheikhul Xadim ne leen su ma leen di wax naan bërëb bi nañ ko xormaal dafa am lu tax malaayika xasa yi dañu fi ñëw seydna jibril mikaayil israfil asrafil bàyyiwume benn malaayika ba àgg ci yonent bi sallallahu alayhi wa di fa ñëwal boppam di def ak moom li muy def ak moom di li muy wax ak moom seexul xadim nee na saa boroom yëkkati na sama jëf ba mu kawe jëfi gaa yi fi jiitu woon yëpp saa boroom may na ma ma dindi jëf yépp ba mu des alxuraan ak xaddis waaye li ma saa boroom defal doy na ma te doyloo naa kon fa xultu xasbiya rabbi waktafaytu bihi wa lastu raadiya gayra al ilmi wa diini loolu wane na ko seexul xaddi nee na àgg na ci sunu boroom mooy ñëw di def ak man li muy def ak man di wax ak man li muy wax ak man Serigne Touba nee na sunu boroom summi na yi ndima yi ma doon liggéeyee ruur ko ci suuf solal ma yërey wurus ne ma demal ñibbi sa dëkk boobee di Touba ku la fa fekk nga yoral ko sa bopp ba àjjana kon tuubaa yàgg naa doon Touba ci jàmm ak salaam ci la ko sëñ Touba jote ñun ñii di taalibe sëñ Touba yi nekk fii ci Sénégal képp ku di Sénégalais rek ñun dañoo jàpp ne taalibeeb sëñ tubaa ndax li feeg yaa ngi dox ci jàmm te sëñ tubaa jàmm jooju la woote te jàmm jooju ci la nit ki di amee boroomam ci lay amee boppam ci lay amee moroomam kon ñi ngi tàll ñépp loxo ci jàmm ak salaam zuriyatan tayyibatan mouvement amul yàqalaate jug na fas yéene woote jàmm ci réewum Sénégal zuriyatan tayyibatan nañ loon dem benn joxante benn liggéey réew mi mu jag xam ne loolu rek moo fi nekk du leneen du leneen jërë ngeen jëf